Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Likatak avec comme chaque semaine Alun Ndiaye. ngi lay nuyu. Merci. Euh, donc, comme, euh, comme chaque semaine, euh, nous aurons deux parties. Et euh, pour rentrer dans la première partie à l'une, c'est une euh, jeune femme qui a fait quatre ans de mariage et qui nous dit qu'elle n'a jamais ressenti de plaisir dans, dans, ses, euh, dans ses relations intimes avec son mari. Mais que, bon, Mounoko, mais en ce moment, elle veut vraiment jouir et elle nous dit qu'elle a même pris rendez-vous avec d'autres femmes sur les réseaux sociaux pour prendre euh, un gigolo, je pense que comme ça qu'on les appelle, pour, pour qu'elles puissent ressentir ce plaisir-là, parce qu'il faut qu'elles le ressentent absolument. Donc euh, voilà, c'est ça la situation d'aujourd'hui. Elle nous demande un peu ce que tu en penses. Alhamdulillah. maa ngi ñaan sama borom mu suturaal ma bañ fi loo xam ne dina ma ci mere ko ñaan tamit mu fi wax loo xam ne ni ci baax dañ ma ci xeeb <coughs> euh, waaw <laughs> sa c'est c'est une situation malheureusement qui euh, qu'on qu'on qu'on voit souvent toujours nañu dañuy dégg euh, jigéen ñu naan waaw euh, je n'ai jamais connu l'orgasme il faudrait que que ma xam lan mooy orgasme et tout parce deux choses li indi problème bi ak moom ni m ko bëgg a fejee <laughs> voilà d'abord damay commencer si lim ko bëgg a feje c'est-à-dire que ces histoires de d'avoir des groupes de femmes <laughs> naan wii euh, am ay groupe parce que léegi léegi naan sax ay tontine góor dafa am ay groupe <laughs> waaye <laughs> la bu tontine góor nga xam ne na ngay na ngeen di cotiser cotiser ku gagné teeb bi teeb bi benn benn jàmbaar quoi boo xam ne bon jàmbaar entre guillemets benn yambaar kay lay doon parce que góor bu demee bay jaay boppam moom kenn xamatul bon façon góor la yàlla si yàlla musal donc mais loolu dafa am parce que foog nañ ne euh, problème yi ngay am euh, si sa si sa mariage yi nga xam ne moo ko mën a fecc euh, mooy nga dem uti benn benn gigolo encore une fois xam nga tant que la base di nga xam ne moom lay wax presque à chaque épisode tant que base bi réglé wuñ ko tant que les causes profondes réglé wuñ ko conséquences yi moom du fi jeex ay góor yuy jaay seen bopp jigéen ñuy dem jaay seen bopp wala kii di dem fii kii di dem fii euh, loolu du fi mës a dañ parce que il faut au départ nga xam ni ngeen war a àndee xam nga même bu dul kaawu ki nga xam ne dafa nekk ci biir sëy di nga gis kaawu koo xam ne yi euh, te moo gën a bëri nga dem ba euh, am yenn âge yi ou mosoo sëy ou na nga comme je comme je le disais une fois euh, jigéen dafa am ay pression yoo xam ne ay pression mensuelle lay nekk mois bu nekk dina am jour boo xam ne wala ñaari fan ñetti fan yoo xam ne da ngay nekk su pression parce que da nekk sa période de fécondité góor moom c'est 24 heures sur 24 nous produisons des nous produisons des milliards de spermatozoïdes par par jour ñun moom pression H24 la jigéen pression am c'est mensuel gis nga pression boobu bu la boo si tolloo mën na la jaral surtout boo amee ay moyens nga xam ne fi mu toll nii am naa moyen mën naa dem def yenn yi en discré en toute discrétion góor yi nañuy jaay bi léegi comme jigéen ñi nañu nekk naan masseur laa wala yu demee noonu nga dugg si réseau yi ut kenn ku la ku la massé <laughs> massage avec avec avec bénéfice. tu vois wala nga dem tu si salle yi wala si corniche bi di seet ay ay koo xam ne mën nga ko ab gis nga loolu daf ko jarul. daf ko jarul xam encore fois société bi moo lay teg ay pression yoo xam ne nañ la naan waaw yow instant bi boo waree sëy genre góor bi nga root yow yaa ngi séntu koo xam ne moom séntuwu la tu vois di seet benn genre cadre comme yow wala benn góor boo xam ne waa ji da ngay daw si ginnaaw ba sonn mën na la fooyee ah parce que góor yi ñoom loolu rek lañ fi nekk ah. ñoom jigéen bu taxaw moom quatre vingt boo jëloon cent góor quatre vingt quinze yi duñ ko repousser wala même plus tu waa góor moom fu mu fu mu gis fuñ ko fuñ ko tenté rek moom day ñëw. léegi nga nga foog ne ñooñu euh, di nga am ak ñoom relation bu bu bu sérieuse fekk doo ko am donc chaque jour nga nga ne waaw góor yi nii nañu mel nii nañu mel. nga jóge ci ay ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy sa sa sa sa niveau bi nga jàpp quoi sa statut ñooñu euh, mën nga ci am ay far mais doo ci am koo xam ne di nga am relation bu bu sérieuse ak moom léegi ñi nga xam ne nag ñooñu mën nga leen am muy ñi nga xam ne ay jeunes nañu amaguñ yenn euh, nu mu tuddati euh, situation yi mais am nañu seen seen seen jeunesse am nañ seen vigueur te yow loolu nga soxla parce que ñee soxlaw leen yow bu dee par exemple ci dis ci es une femme indépendante yaa ngi am ay léegi looy de waa ji soxloo xaalisam. xam-xamam loo koy doyee wala ay connaissance am nga koy doyee <laughs> non nañu waxante dëgg ay werante rek ngeen fay nekkee si biir kër gi yow loo soxla mooy jàmm ak góor boo xam ne ne vraiment yow ses besoins yi nga am mën na la ko fajal donc jeunes yi ngay dem di ay ay boy yu ñàkk fayda ay gigolo yoo xam ne nekkuñ fi lu dul naan ñoom dañu jéem jaay seen seen seen doole mais mën nga am jeune boo xam ne bu bu responsable boo xam ne yow mën nga mën nga nekk ak moom nga nga nekk jëkkër ak jabar lan moo ko fi jar chaque mois ngay ngay toroxal sa bopp naan yaa ngi dem seeti góor boo xam ne léeg-léeg mu filmer la léeg-léeg mu xamal la wala yu demee noonu yoo xam ne mais tu ne sais pas loolu fan lay mujjee. c'est pas une solution il faut pas être court-termiste di xalaat ne man gis naa ne par exemple kii mi ngi may wax ne parce que jigéen nañu jéem a def genre émulation malsaine kii naan la waaw lii de dund naa ko kii naan lii de nga naan ko déet kay xaw ma lan lii il faut ma xam ko yu deme noonu mu naan la waaw mën naan la teg si yoon bi nga jéem seet vraiment nga découvrir fekk sa musiba nga fa découvrir parce que euh, euh, jigéen ak góor bokkuñu nu ñuy duggee si ay relation il faut il faut il faut cette masculinisation de de la société la nga bëgg na jigéen léegi comme góor laa mën naa def comme ni góor yi am am naa di góor am mën naa def comme ñoom tu y vas y laisser des plumes parce que vous n'êtes pas forgé de la même manière góor ni nga xamee ne dafay dem euh, euh, nga xam ne émotionnellement non attaché quoi franchement nga xam ne mën nga nekk kii nekk kii te te te mën nga si jógee safe comme ça entre guillemets loolu pour mu mu dal la si jigéen c'est très difficile jigéen il faut qu'elle s'attache émotionnellement au départ même si sax bon mettre nga nekk nga dans des condition wala nga nekk si benn période parce que moom laa lay wax nii pression boobu jour yooyu boo si nekkee moom daanaka moom da ngay mel ni góor moom presque daan am na ay xalaat yoo xam ne mën na la si bañ a fekk mën nga def loo xam ne peut-être di nga ko rëccu mais instant bi bi nga siy nekk moom. loolu rek ngay gis presque tu es presque à tout. donc instant boobu euh, boo si duggee mën nga si jëlee euh, attachement wala jëlee si benn genre ay coono yoo xam ne. pour nga génn si comme góor nu mu siy génnee sain sauf nii entre guillemets c'est pas la même chose parce que xam nga il faut que ñu xam benn affaire entre góor ak jigéen jigéen dafay sécréter hormone bu ñuy wax aussi ocytocine te góor du ko sécréter c'est-à-dire que bëri na hormone du plaisir yoo xam ne ñu ñoo koy sécréter ndoo tu vois mélatonine euh, ay yenn endorphine yi ci waa yooyu xam ne. Euh, sérotonine yooyu nga xam ne vraiment hormone du plaisir bien-être ñoo ñun ñoo koy bokk mooy ñuy bëgg di am yenn. Euh, yenn yenn plaisir euh, tu vois charnel yi quoi mais hormone de l'attachement bi tax jigéen di attaché wu aussi ocytocine boobu góor du ko sécrété <laughs> moo tax ñun dañuy ñëw tu vois mën nañu <laughs> am fukki jabar yu demee noonu dama jóge fii dem fii parce que attachement boobu góor encore une fois responsabilité lay demee du demee attachement léegi nag attachement boobu suñu borom da koo def pour que jigéen bi comme moom moom comme je te dis encore une fois ndap la ndap la ba pare ba pare incubatrice la si si si wàll par exemple ak jëkkër moom day nekk ndab bi nga xam ne ne mooy accueillir bi nga xam moom la ko jëkkër ji jox mu mu mu mu ëmb ko ba pare génnewaatal la ko tu vois ba pare xale bi tam moo koy yar moo tax it da ngay gis cas yu bëri la koy les secrétaires hormones de l'attachement buy wasin wasin bi lu mu metti metti parce que yaa ngi foofu toujours ak mettit boo xam ne yaa ngi sécréter aussi ocytocine c'est paradoxal tu vois ocytocine boobu day tax nga attaché wu si doom bi nga xam ne moom ngay moom ngay wasin wasin jur nañ ne bàyyi nii rek c'est c'est pas facile benn benn benn traumatisme grave la même bu ñaan jour sànni nii parce que attachement boobu booy bi ngay bi ngay wasin da nga koy am bi ngay nàmpal da koy sécréter moo taxit ngay attaché wu sa doom moo tax ngay bëgg sa doom nga attaché aussi c'est parce que émotionnellement benn bi ngay am connexion bi nga am sa doom papa bi mën na ko bañ am ak doom parce que papa bi encore une fois responsabilité lay demee. góor du gën la ay doom en général kii moom non parce que góor ñëpp ngay ngay ngay ëmb am responsabilité pour tout le monde boobu nag nga xam ne booy booy sécréter ocytocine moom ngay am si sa doom boo koy jur ak bi nga koy nàmpal moom ngay sécréter si booy booy nekk góor yu am plaisir. mais booy am plaisir ça veut que booy am benn niveau de plaisir bi ngay jouir am ay orgasme na ngay sécréter aussitôt aussitôt si mooy tax nga attaché wu euh, si si si si jëkkër si sa jëkkër wala ki ngay nekkal donc loolu mënoo si détaché wu de manière de manière euh, vraiment facile moo tax jigéen mënul bëgg euh, comportement bi góor bi di am moom mu ne da koy am donc solution boobu muy wax ne moom la ko bëgg a fejee c'est pas la même pas une solution c'est même pas une option. c'est même pas une option amul benn cas de figure bu mënee nekk option léegi beneen côté bi nag en amont lu lu indi loolu bu doon jéemoot solution fii na seet bu dee gis na ne vraiment parce que moom cas bi mu wax mooy que waa ji euh, nu mu tuddee moom nee na euh, moom rek la xam comme góor bon d'après li muy wax quoi. te nee na quand xamoon na dara si sur affaire russe parce que xëy na da koo gis si si da koo jàng si livre yi parce que nee am na yu mu si xamoon quand même parce que gëstu na si xëy na si livre yi wala si film yi la ko gëstoo bon loolu nañu supposé c'est-à-dire qu'elle est curieuse de de de ces histoires de de de voilà de de couple elle est curieuse donc xam na ne yaa euh, yaa y mieux que ça et que waa ji nee na il ne fait aucun effort benn position. Mm-hmm. day def ba pare du waxtaan ak voilà te te day gaaw te du ko laaj sax ndax ba kii am na plaisir wala tu vois mm-hmm. il fait ça affaire il s'en léegi bu dee yow euh, par exemple situation boobu bi gis na ne mënul régler mm-hmm. li koy faj mooy nga bàyyi ko fi dem uti keneen donte lu jafe la c'est pas facile. première cause de divorce, ce n'est pas les problèmes sexuels. Les pr premières causes de divorce dans le monde, c'est les problèmes d'argent. En général, li la fay téye mooy xaalis parce que góor boo xam ne joxu la xaalis joxu la plaisir moom moom wax bi moom du du sax yàgg <laughs> xam nga ay namay uti keneen du ko sax fekk mais problème bi en général li mu la dul wax mooy que waa ji euh, mi ngi pourvoir bu baax à ses besoins waaw moom euh, elle l'a même dit elle a mm. dit que ni lépp lu wax si moom mi ngi koy def mais c'est ça en fait Exactement. qui cause un réel problème Exactement. dans leur vie de couple parce que euh, liñ la dul may moom mooy mooy xaalis moom kenn duñ la ko may moom foofu moom presque toutes les causes euh, première cause loolu la sexe ça vient après mais fii nii bu jàppee ne moom Euh, kii euh, par exemple mënul wax ak moom ba mu changé mm-hmm. bu ko jaralee mu muñ wala mu ut ay yeneen pexe yoo xam ne ne je sais pas quel trouve des plaisirs solitaires ba moo xam boo euh, xam xam ne moom dina mën a am plaisir mu bëgg peut-être mën na si mën na si génn wala mu séparé wu de de jëkkër ji ut ba keneen koo xam te encore wóoru ko ndax du jóge si koo xam ne mu ngi noonu dal dal si piir <laughs> parce que le problème il faut il faut que tamit que ñu ñu wax ak góor ñi tamit parce que euh, il faudrait que góor ñi xam ne moom ni mu waree parce que góor ak jigéen ko encore une fois bokk ñu ñeen bindee góor moom si rela si relation sexuelle à coup sûr moom day am plaisir sauf exception sauf des cas exceptionnels tu vois à coup sûr day am son plaisir te léegi-léegi sax Euh, euh, moom moom day retenir day retenir plaisir am pour mu xëñ na bañ a gaaw alors que jigéen bi c'est le contraire ñun toujours dañuy nekk ay pôle ay polar c'est toujours une polarité ñoom jigéen ñi moom day day day day seet nu mu atténuer son plaisir parce que du du gaaw ñëw wala du ñëw de la même manière ñun ñun nañu binaire encore une fois ñun c'est un wala zéro jigéen moo gën a complexe dafa ay ay ay facteurs yoo xam ne mooy tax. mu mu mën a am plaisir donc yow étant donné que xam nga loolu yow da ngay fexe yow boo nekkee ak sa soxna mu na nga xam ne c'est ta responsabilité yow ni nga ni nga ni nga ni nga xamee ne yow sa plaisir assuré na noonu nga amee responsabilité pour que moom mu am plaisir exactement parce que plaisir am si sëy bi la bokk c'est quelque chose de non négociable c'est pas une option daf ko war non parce que plaisir dafa multiforme encore une fois euh, sëy dañu euh, fi ñu fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko euh, embrigadé tëj ko fa moom moom moo dul moo dul moo loolu c'est-à-dire que plaisir dafa dafa multiforme c'est pas seulement par exemple di voilà il faut que ñu ñu am benn kii benn rapport bi bon nga baal ma si terme bi mais c'est pas seulement que c'est toujours la pénétration mooy tax nga am plaisir wala na loo xam ne ne si jigéen mën nga fexe ba mu am plaisir moom tamit war na mën a xam ne euh, euh, rapport euh, entre góor ak jigéen c'est pas seulement lii la mais nga fexe ba góor bi mu nekk à l'aise ak loolu nga mën ko wax ne ko affaire yi émotion yi tendresse bi tu vois tout ça compte en fait loolu ça compte et que mën na nekk plein de chose mën na mën na mën naa am plaisir mën naa am épanouissement te te xëj na yenn yenn relation yi du duñ fa yegg mais li ñu war a comprendre mooy góor yi lu ñu war a xam te mu mu important parce que xam nga le but c'est pas de lui expliquer nu muy def parce que yooyu xajul si émission bi. dama la bëgg wax mais voilà gëstu bi nu mu tuddati euh, ci góor yi war nañ ko man a xam parce que c'est pas ay film par exemple nañu xamee nu ñuy nu ñuy seede nit nañu def nañu def erreur. parce que le film de réalité le film c'est c'est c'est la fiction c'est du n'importe quoi. je veux dire c'est c'est c'est du du du du ay relation am femme ba jëkkër ak jabar c'est c'est du sport quoi man sport laa koy jàppee wala xam nga ay. mais mooy comme ni nga ko waxee rek en fait jigéen dafa complexe et jigéen bu nekk dafa spécifique ni muy ku nekk ni muy amee plaisir moom moo ko xam donc tey jii yi moi je pense que góor bi il faut que mu waxtaan ak jigéen bi comme ni mu waxee ni que amuñu cadre boobu noonu que ñu mën a toog paaka mu wax ko. Euh, lii neexuma wala que mu mën ko frustrer mais qu'il puisse se dire c'est ça que j'aime le plus et que ku nekk mën a dem ci dynamique boobu noonu que jigéen bi xam jëkkëram et que góor bi xam jabaram ak lan moo koy octroyer plus de plaisir que mu mën a nekk ci dynamique boobu noonu. waaw xam nga waxoon naa la ko fi benn jour mais la communication. waaw c'est surcoté. Mm. <laughs> mais dans ce cas précis nee la action mu ëpp solo si couple que ay wax parce que wax euh, wax mën na mën na stressant wax mën na stressant pour que nga mën a wax nit exactement li li nga bëgg sans pour autant affaire bi indi coow wala mu mu frustré ko c'est très difficile nga koy won si ay acte ak par exemple boo la nekkee dans l'intimité nga koy won si ay acte moo gën a yomb tu vois am na loo xam ne ne ku jigéen ki bu ko bëggee si góor ku góor ki moom mën na xam nu mu ko ko nu mu ko si indee mais li ma bëgg wax góor ñi mooy que balaa soxna si di def effort boobu yow bi ngay ñëw bi nga bi nga paree ne yow damay am soxna ne par exemple di utal naa ko kër fu mu war a dugg euh, maa ngi koy toppatoo maa ngi koy dundal maa ngi koy solal euh, doom yi maa ngi leen di toppatoo danga war a xam ne sëy si boppam. yow responsabilité bi ngay indee loolu sur la table loolu nga war indiwaale tamit le plaisir bi ngay jox sa jabar parce que loolu mooy mooy pérenniser sëy bi te risque bu mag ngi ci <laughs> ma wax la ko tey nag xam nga risque bi mooy lan mhm. mooy que jigéen bu dul aussi ocytocine bu attaché wul si yow yow jàppal ne am nga noon si biir kër gi te yëgoo ko <laughs> je te le jure c'est la vérité pourquoi ngay dégg ne diw diw diw euh, soone na jëkkëram wala ngay dégg ne xaañ na jëkkëram wala ngay dégg fii comme bi nga fi déggee koo xam ne jël na sa sotti la liquide taal la nga takk jëfet lu tax ngay ngay ngay dégg kaay mel noonu mais parce que am nga noon ci biir kër gi boo xam ne ne yow aussi ocytocine la dul sécréter elle n'a aucun attachement pour toi te gis nga bu ko dul sécréter da lay bañ jigéen bu dul am plaisir ak jëkkëram je te le promets bañ lay mujj waa ji na nga koy mujj na koy détesté te nànk-nànk ay problème ngeen di am doo am jàmm si kër gi ñi gën a impulsive dañ la koy woon tout de suite ñi gën a sadique nag mën nañ la ko bañ a woon nànk-nànk dañ lay rey <laughs> mën nañ lay poson nànk ba nga dee parce que gis nga <laughs> am benn ustaas bu relo bu ko naan wax naan nee na gis nga jigéen bu ñu toogee nee na jotaay jigéen nga ne leen diw góor bi dafa nay bi ñu waxtaan dañ naan kii dafa nay ñu naan yàlla na tawte ñu ñu naan waa ji waa ji dafa soxor yàlla na tawte kii day dóor yàlla na tawte waaye bu ñu nee kii du góor dañ naan yàlla na dee <laughs> gis nga loolu duñ ko baale kii du góor yàlla na dee nañuy wax gis nga risque bu mag la góor yi di jël sa jabar bu am plaisir tu vis en danger te xamuloo ko loolu gis nga naa la ni ngay préparer lépp pour nekk ci sëy loolu danga ko war a préparer jox ko importance parce que jigéen buy sécréter ocytocine mooy cas yi ngay gis koo xam ne ne dañuy wax lu nekk waa ji def na lii def na lii def na lii mais dafa def naan waa du ma ko bëgg dafay toog mën na supporté lépp même problème mu xaalis yu ñuy wax parfois mais jigéen supporter na góor lu lu lu dama dama mais parce que mais attachement bi ngay am si doom imagine li ma la wax physiologiquement ce sont les mêmes hormones li attachement bi lay bi bi la hormone bi jox pour sa doom boo koy ëmb ak boo koy nàmpal moom la lay jox si jëkkër bu lay jox plaisir tu t'imagines ko jigéen bu bu bu bu yemale. doom ak jëkkër mhm. jëkkër jooju foog nga noo ko bàyyi. mais jigéen dina am fu muy tollu góo jëkkër misère misère loo ko instant boobu amul lu ko mën a lu ko mën a soulager même doomam bi ko jur sax du ko bëgg a gis lu lu garaaw laa lay wax jigéen am na fu muy tollu doomam bi mu jur du ko sax bëgg a gis parce ku ko teg loolu jëkkër ji. tu donc am na attachement booy am si si si si sa jëkkër na foofu lay toll si yow te loolu plaisir rek moo la koy jox bu ko fa ñàkkee yow xamal ne yow si si xottu si nen nga toog <laughs> c'est dangereux parce que donc loolu gis nga góor yi il faut que ñu bañ ko jël à la légère farata la yow ni ngay toppatoowee euh, lekkam ni ngay toppatoowee naanam ni ngay toppatoowee dëkkam noonu nga war a toppatoowee son plaisir sexuel sa responsabilité la léegi nag moom nu mu koy amee loolu yow yaay war a fexe ba xam ba nit boo leen naag yàggee di ngeen xamante loolu di ngeen xamante di nga xam di nga xam di nga di nga mën a xam léppam te loolu mais da la koy jaral en général góor ñi ils sont même pas dans la dans les dispositions psychologiques sax da xam yow lan nga bëgg tu vois ñoom ñoom pour ñoom affaire bi ngóor mooy lan mooy nga ñëw yow wane sa kattan wane sa doole wane ne góor laa ñëw ñëw yow jël sa mais mais loolu. loolu yow bàyyi ma yaa leen ko yaa leen ko yemale. Mm. loolu loolu du góor loolu du ngóor loolu du dara parce que loolu ñëpp mën nañ ko. yow mu jaral la lu ne nga jël ay fii naan fii affaire yooyu ne na nekk mais taxul nga ne ko góor mon <laughs> góor moom bu que yow sa soxna moom mënoo mënoo ko jox plaisir mais ne koo góor parce que loolu mooy tax nga mën a xam ndax yow vraiment yaa ngeen si benn euh, benn couple boo xam ne euh, wóor na. si yéen ñaar ñëpp <laughs> parce que y' a pas li gën a dangereuse jigéen jigéen bu jigéen bu bu bu bu bu frustré <laughs> amul lu ko gën a dangereux te loolu gis nga dafa am euh, si sëy yoo xam ne man dama daan toog man bi ma gënee nekk jeune di waxtaan ak sa sama yenn xarit yi ñoo xam ne trentenaire vingt et ok du ñaan la man ak sama soxna weekend ba weekend man ba jour yi may liggéey damay sonn quoi weekend ba weekend ay samedi yooyu si laay laay sëy sëy ak sama soxna ne ko yéen ce que seen neex na. mais nit nañ nekkee nekk jeune nekk ak sa soxna nga ne weekend ba weekend ngeen di sëy loolu ban monde nañu nekk <laughs> mais non mais chaque jour yaa ngi lekk yaa ngi naan gis nga chaque jour yaa ngi lekk yaa ngi naan chaque jour war nga sëy loolu moo normal bu dee nit ku normal nga bu dee tout fonctionne chez toi ni ngay lekkee di naanee noonu nga war a demee toilette noonu nga war a sëyee si groupe normal léegi nag ñun dañuy dem si ay euh, dañuy dund façon dundin boo xam ne dootuñu normal kenn wéru fi presque tu vois tous on est dañuy taxale donc mooy tax ngay dem si yenn yenn kii mais mën naa la waxal dara du loo xam ne téere la jigéen boo tëbalee ñaari fan commencé nga am noonu si kër gi gis nga benn fan mën na la ko may. <laughs> yaa ngi ñuy traité de criminel. comme ça non non non pas tout wax ne gis nga benn fan boo ko tëbee. mën na la ko tolérer mais deuxième fan bi gis nga laaj ko góor ñi deuxième fan boo ko tëbee commencé am wax yu sew du loo ko wax léegi ne mais wax yi commencé sew ak naqari deret bi commencé nga naan kii dafa dafa bëri jikko bëriwul jikko yaa toog deux jours laaloo ko mu commencé am ay problème commencé am lu muy xalaat ne kii lu tax deful lii dafa deux jours maa la ko wax boo koy toog deux jours mu commencé indi la wax yu sew wax yu sew noonu nag moo moo mën a dem indi ay affaires yu dangereux donc góor ñi dañu war a xam li nga xam ne moom mooy farate si sëy te loolu ay rapport yoo xam waxuñu nag n'importe quoi nga xam ne yow da ngay ñëw jël sa prise si yoon non mais na doon loo xam ne moom da gis boppam comme yow te loolu dafa war a nekk loo xam ne euh, au fil des années war ngeen di mën a communiquer sur ça nga mën a xam ne yow kii euh, lii la bëgg te na nga koy xam sax da koy xam am na am na am na nu muy demee da ngeen di xamante moom mu xam la nga xam ko waaw waaw tu vois mu xam li nga bëgg nga xam ne nga xam ay point faible mu xam say point faible nga xam ay kii yam tu vois donc loolu normalement boo leen di nekk dafa war a mën nekk donc loolu góor yi nañ ko def farata te jigéen ñi tamit dañu dañu bañ am yeneen option mënoo nekk si sëy surtout sur ce plan là ngay am ay yeneen option jigéen en tout cas di euh, ma koy waxati ndab la ndab nag kenn du si def n'importe quel ñam sinon dootoo nekk da ngay am beneen beneen beneen tour am dootoo tudd voilà donc mënuloo ne par exemple na may dem euh, kii am nañu groupe boo xam ne nañuy dem ut benn waaye boo xam ne plaisir bi nga si su su mën naa la waat neuf fois sur dix doo ko si gis boo génnee nag di nga fen <laughs> comme di génn sa kii ne waa affaire bi kii fekk yaa ngi nax sa bopp gi nañu bàyyi suñuy xel yu ñuy foyee tu vois euh, plaisir dafa bëri façon bul jàpp ne kii nee na la man amoon naa am naa plaisir yow nga ne man par force ni laa koy amee man gis naa soxna soo xam ne neen dafa na jëkkër mu fase ko parce que xaritam yi nañ nañ leen wax ne ñoom bu ñuy seeg seen jëkkër seen jëkkër day jooy <laughs> te moom te moom jëkkër ji fexe na du neex mais jëkkër ji du jooy <laughs> mu ne léegi dama koy bàyyi parce que du jooy <laughs> parce que il faut que moom moom il faut que xam lu may def ba muy jooy tu vois donc yooyu c'est des c'est des trucs yoo xam ne nañu bàyyi fooy fooy yi quoi c'est des choses sérieuses et voilà c'est c'est la vie qui comme ça booy nekk ak nit na ngeen di nekk euh, sur sur tous les plans voilà mu def effort yow tam nga nga def effort moom bu deful effort bi yow nga ramener ko à ses responsabilités. jigéen moom ne bu ko góor loolu sa jëkkër bu ko may jàmm mettre ko devant ses responsabilités mais ak ni nga koy defee tamit cest dire que voilà mais mettre ko devant ses responsabilités. ok donc euh, merci beaucoup Alioune di leen rappeler surtout donc euh, le plaisir il fait partie intégrante du mariage donc euh, de prendre ça en compte surtout et euh, que personne ne soit frustré bala ngeen di am noonu ci seeni ay biir donc di leen rappeler aussi de vous abonner massivement à nos différentes pages Facebook Instagram TikTok YouTube li ko tak tasu ko la page de Imali TV Euh, Alioune pour rentrer dans la deuxième partie kii euh, daf ñu ne ni que jabaram dafa cloner portable am donc euh, elle reçoit lépp lu mu mën ci def ci téléphone am daf koy gis et bon nee na doonul koo xamante ne il a eu d'autres d'autres rapports intimes avec des femmes mais doon na doxaan di def ay sorties di rencontrer d'autres fii mais mosul séq ak ñoom benn relation bu xaw a intime léegi nag am na si ñu ko jot a yónnee ay nude ba jabar ji yónnee ba jabar ji jot ko taaj na ko nag léegi wax na ko lu nekk euh, jiiñ na ko sax njaaloo alors que moom mosul njaaloo mais il n'a pas de preuve pour pour le prouver léegi euh, nee na jabar ji menacé na ko posté vidéo yi si sur le sur le net et tout et mu lay laaj un peu quest que tu en penses waaw kii moom cas yi façon cas yi dafa dafa commencé di bëri si mhm. ay problème mu ay ay réseau ay problème mu ay d'abord première chose mooy ay téléphone euh, bu ñuy cloné ak di vraiment jigéen ñi vraiment dañu sonn quoi ay ay ay ay lan ngay góor yi dañu war sax di bañ a di di di di def code ci seen seen téléphone sa téléphone de ko fiy bàyyi ñëpp di ko gis. mais defuñu jàmm moo tax. ñuy codé ak ji même boo deful jàmm même boo deful jàmm euh, bu ko gisee c'est son problème. non mais mais mais góor yi lan la ñuy ragal si seen jabar yi non mais yow ragaloo yàlla yow ngay ragal sa jabar góor yi nag da xam nga boo ragalee yàlla doo mën a ragal leneen léegi nag boo ñemee yàlla moom ngay ragal lu ne nga ragal ko yow yow yow yow laxatuwoo yàlla di rax laxatu sa jabar lan ngay laxatu mu naan de da nga ko koy génneel tekkal ko ko nii loo gis nag yow la loo si gis c'est ton problème mais bu dee yow da nga nekk déjà di laxatu naan maa ngi def lii muy génn di parce que déjà kii xam nga sécrété wul ocytocine <laughs> xam nga lii laa lay wax non yi fii lay commencé parce que kii yëpp na la te li tax mu yëpp la. ak di moom moo ko teg boppam moo ko teg boppam. merci beaucoup que xam nga am na yoo xam ne duñ la ko wax parce que nañu ñëw rek génneel la cas bi kii presque ennemi la la def. xam nga yàlla da koy wax ah, parce que lépp loo gis rek euh, yàlla si seen soxna yi ak si seen doom yi seen noonu la. xam nga bu ko waxee nii naa la ko wax nii mu nuur nga naan man sama wax dafa rëy moom li mu sàkk moo ko xam nee naa am na si seen jabar yi ak si seen seen doom yi seen noon lañu moytu leen <laughs> waaye nag nee na booy jéggale di jëlale loolu moo loolu moo gën mais problème bi mooy que il faut que nga xam ne am na nooy doxalee tu vas te créer des ennemis booy négliger sa jabar toppatoo ay plaisir am euh, dalaloo xelam yaa ngi yaa ngi cultiver yaa ngi yar benn noonu sa biir kër boo xam ne buy buy këpp sa kaw parce que kii li muy wax naan dem na. ba jël ay vidéo am parce que waa ji tamit day foy xelam. Mm-hmm. nee na waaw daan naa yónnee ay vidéo mais du samay vidéo <laughs> ah man <laughs> loolu moo ma jaaxal yónnee xam nga gars yi am ay technique parce que voilà bu bu dee sa sa sa sa visage feenul rek du man. Mm-hmm. xam loolu mënoon nax sa jabar ne ne kii du samay vidéo loolu lay wax mais jabar ji bu koy menacé da koy génne ci réseau yi c'est xam na ne moom la. Mm-hmm. voilà donc ak ay ay ay yoo xam ne wala photo yoo xam ne ñi muy nekkal ñu ko koy dugal xam nga taxaw ne. duma mooy yàlla njaalowuma te yaa ngi nekk ci réseau yi ak ci kii di ñàkk fayda di di di parce que kii déjà mi ngi dund benn genre frustration xëj na moom ci biir seem jabar ji mi ngi frustré moom xëj na mi ngi frustré bu dee dafa bëgg a bokk ci nga xam ne ñoom weer ba weer nee nañ nañuy sëy wala semaine. semaine ba semaine. semaine ba semaine. <laughs> <laughs> moo tax ñu loolu tànn la sax am na ñoo xam ne weer ba weer ah wala yu demee na je sais pas fin du mois ba fin du mois wala je <laughs> wala wala xam mais tu vois donc yow. ku nekk yaa ngi dund benn dund parallèle mhm. yow yaa ngi bëgg yow yow yenn yenn plaisir yi nga koy am si ay si ay internet mhm. moom tamit doo xam moom tamit yaa ngi ko délaissé doo xam moom tamit yan yan façon plaisir lay bëgg am mu jural leen benn genre i tu boo xam ne mu mu mu mu lay suivre di la di la pister ak di la ba di jël sa ay video di la menacer mhm. pour que nga bàyyi loolu donc déjà góor moo moo warul dugg ci yooyu bu dee yow nekk nga koo xam ne am nga soxna d'abord balaa ngay ngay wax waxu beneen soxna fexeel ba soxna bi nga bi nga am nga xam ndax mu ngi am bànneex parce que dañuy wax ne mën mën yor mën yor loolu si la bokk c'est-à-dire que toujours les gens ils toujours naan waaw boo mënee am euh, gis nga quatre femmes ak ay trois femmes deux femmes yooyu. du ñëpp a ko mën non du du mën du mën matériel rek mën lépp la c'est-à-dire physiquement et te te ay ay am euh, ñetti soxna euh, nga ne kii tey mooy aye kii mooy aye bu ma demee fële su du ma ko mais loolu loolu loolu kenn waxu ko fenn de par exemple jigéen amul amul sens interdit si jëkkëram de. il faut ñu jàngalaat góor ñi polygamie. non mais c'est que jigéen ak nan la ñuy doxalee c'est que nit yi ñooy ñooy ñooy ñooy teg si diine ji loo xam ne diine waxu ko xam nga diine benn genre fourre la. tu vois les gens ils ils prennent tout et n'importe quoi ne diine bi ñu bëggee laxtu fenn rek na diine moo ko man gis naa sax ñuy dem ba naan ne waaw euh, boo ayee si boo boo ayee si benn jigéen bu doon na nga dem ay fi dem si beneen sa beneen jabar boo xam ne ne du sa du ayewul boo fa amee ay doom doom yi doom yu baaxuñ mais ay doomu njaalu mais mais man je allahu comment genre xel yooyu naka la ko nit mën a produire sax ba bëgg askanal diine ba pare ñu dañuy dem ba di si werante ah ba ba diine la quoi mais. même ñi nga xam ne sax ñooy da ngay gëm ne yenn xadis yi wér naa wérul yooyu sax amul sa existé wul amul fenn amul texte je veux dire waxuma la sax euh, ay kii waxuma la ak alxuraan mais je veux dire que loolu ay waxu ko daanu saret la jigéen warul même buy dund polygamie amul sens interdit si jëkkëram. c'est pas parce que par exemple aywu ma bu ma ñëwee ma ma ma soxla la du la mën a am pourquoi boo ko mënul nga bañ a takk c'est tout. c'est aussi simple que saa cest dire que yow bu dee mënuloo si jabar bu la bettee <laughs> nga satisfaire ko nga ne parce que na ma war a ay fële te damay sonn yemal si benn jabar cuuj day xam lekkam voilà da ngay xam li nga mën ak li nga mënul c'est pas seulement que mën nga ko mën nga ko financièrement ko non non financièrement bu dee da nga bëgg euh, ñooy soutenir utal ay ay ay xale yu jigéen ñoo xam di nga fexe ñu ñu nga mettre leen à l'abri te doo doo doo nekk ak ñoom c'est tout hein mais mais mais c'est pas par exemple nga utal ay ay ay ay ay fiyal quoi ni ñuy wax fiyal tu vois non xam nga dafa dafa may du ñuy wax ay sugar daddy sugar bi yooyu dañ koy aayal mais aayul ah bu dee dafa nekk dans les règles c'est-à-dire que nga gis jigéen parce que le principe de base c'est quoi encore une fois ma répété ko jigéen moo warul nekk dans le besoin financier booy xool yàlla toujours ci alxuraan toujours buy wax rapport entre góor jigéen ñëpp ay xaalis la xam nga maa ngi gars yi ñu ngi may wax loolu ma waxul naan ma maa ne xaw ma ku ku ku am petit ami xaw ma lan daf ko war a dédommage bu ko bàyyi alors ko wax ma fi petit ami petit ami yàlla xamul petit ami <laughs> yàlla ñaar ñu nekk la xam bu dee na ngeen di sëy wala sëyu leen yàlla xamul jigéen booy xool rapport entre góor lépp joxe la boo boo koy boo koy jël na koy jox boo ko bàyyee yàlla wax na ko c'est écrit dans boo koy bàyyi boo ko mënee jox xaalis moo gën moo gën a rafet te loolu sax def ne farata la si si si ku gëm. àq la si ku gëm booy bàyyi soxna nga jox ko xaalis boo bu amee doom boo ko bàyyee bu bu koy nàmpal da nga koy fay mm-hmm. même boo leen d'accordul si prix bi nga soogut kenn ko nàmpal bu nu mu suuti boo ko bàyyee te laaloo ko na ko war a jox xaalis boo ko bàyyee la lépp lépp même boo leen fixé wul cat na nga ko war a jox rapport entre góor ak jigéen mooy joxe parce que jigéen moo warul nekk dans le besoin mm-hmm. c'est ça parce que loolu loolu lool loolu nañu bëgg jigéen mu bañ a nekk dans le besoin financier booy gis man ay jigéen yu nekk di di yelwaar mu luy demee noonu si mbedd mi wala di liggéey ay liggéey di jaay man gis nga sama xool bi day jeex jigéen warul nekk si mbedd bi di jaay ay jaay c'est pas normal c'est pas normal ana góor ñi ana frère yi mm. donc euh, loolu loolu dafa dafa doy waa mais encore une fois gis nga euh, nu mu tudd tuddati euh, jigéen yow bu dee na nga am moyen nga nekk koo xam ne tu as tu es millionnaire milliardaire euh, ay jabar yu bëri taxul wane prospérité bu dee mënoo ko physiquement mën nga ko matériellement mënoo ko physiquement utal ay jigéen yoo xam ne tu les mais à l'abri du besoin c'est des étudiants nga fayal leen c'est des jigéen yoo xam ñu ngi liggéey nga utal leen magasin ñu jaay mais de manière désintéressée loolu la góor ñi mënul. waaw euh, c'est ce que je voulais la ñi mënul en fait que tey jii nii ñi ngi ci monde boo xamante ne c'est du donnant donnant voilà loolu mooy góor ñàkk jom gis nga góor na am jom na ngay am fulla euh, nu mu tuddati dafa am loo xam ne ne euh, war il faut pas am ay parce que léeg-léeg parfois c'est même pas de de des des des besoins physiques ah parce que góor léeg-léeg dina la sonal si sonal boo xam ne yaramam sax munu ko mais mais euh, prétexte am c'est principe la principe <laughs> principe su ma joxee rek dama war am dara en retour. donte sax physiquement tu n'es même pas apte pour pour pour am dara mais principe du ma joxe sama alors que principe boobu nga war a jël sànni góor day mën a jox jigéen xaalis de manière désintéressée te mën na nekk parce que am na góor yu koy def góor day mën a jox jigéen xaalis de manière désintéressée bu dee am nga ko fexeel ba booy joxe na joxe en priorité jigéen ñi. parce que ñoom ñoo war a bu ñu gis nga bu ñu demee ba nekk à l'abri du besoin société bi lu bëri day day day defaru de du bëri day defaru parce que amatoo benn moyen de pression boo leen di teg parce que toujours boo leen di fragiliser moyen de pression boobu ñàkk financièrement bi moom foofu foofu nga leen di jaar ci vois donc donc góor ñi waa ji ki nga xam ne déjà mu ngi nekk ci benn mariage euh, moom je sais pas lan moo xew parce que toujours affaire yi euh, li nga joxe rek ngay ama ah. jàpp nga ne sa sa sa jabar intéressé tout ci yow mais parce que amu ci amu si dara relation boo xam ne moom ay coono rek la siy jëlee mën na si bañ a sawar tu vois ba nga dem benn instant tu vois ba du sawar nekk ak yow yow nga ne bon kii tamit léegi daf may négligé naa dem si internet bi am na ñoo xam ne ñu ngi fa nekk wala nga nekk foofu di tu di def sa affaire yooyu fekk na yow li nga waroon def yow yaa ko deful tu boo ko deful nag moo lay jural problème yooyu beneen bi tamit mooy boo demoon ba jàpp ne war nga am beneen soxna te mën nga ko physiquement mën nga ko financièrement mais amal utal beneen jabar moo gën ngay def ay ay ay dugg si internet di def ay affaire ay ay ñàkk fayda di di jël ay ay ay ay vidéo te jigéen ñi nañ bàyyi di poster ay vidéo góor ñi nañ bàyyi di parce que internet bi boo koy xool boo gisee benn góor di nga fa gis cinquante jigéen nañu waxante dëgg vidéo yi si jigéen ñi la ëppee ko si góor ñi waaw tu vois donc lan la la waa ji mën a wax ba nga koy yónnee ay vidéo ban ban façon nax la la war a mën a nax parce que tu parce que góor ñi ñoom ñoom lu ñuy gis moo leen di neex comme on comme on dit toujours góor lu muy gis moo koy moo koy neex jigéen li muy dégg moo koy neex tu donc gars yi nañ c'est pourquoi c'est pour ça pourquoi les femmes les hommes mentent <laughs> parce que parce que góor góor muy li muy gis moo koy neex jigéen moom <coughs> li muy dégg moo koy neex dégg jigéen yi. internet bi boo demee mu fees fi dell tey yu bëri ay ay góor yu ñàkk fayda la ay ay ay sa sa copain la yu demee noonu moom moo la naan waaw ma yónnee ma parce que mais lan la la mën a wax ba nga yónnee ko ay vidéo mm-hmm. pour après dellu ngeen séparé wu séparé bu ñaaw mu def le revenge porn dugal ko ci réseaux sociaux yàq sa àddina comme ça ñu def ko ñeneen yow c'est-à-dire chaque jour nga gis ko ñu def ko ñeneen te yow du la du la servir de leçon parce que comme je dis bi la dëgg la ocytocine bi moo leen tooñ parce que moom moo bëri doolee parce que yow góor góor bi am na nooy toll fu muy toll si yow yow naa la comme comme doom bi nga yow doo ko bañal dara donc fexe nañ il faut toujours moo tax it gis nga relation ku ne nañ ko yàlla da ko da ko yombal yàlla xamul tax mu yombal ko parce que c'est obligatoire ngeen nekk ci par exemple suñu la nee par exemple utal jëkkër bu bu boo xam ne yaa ko mag fuuf yow nekk nga cadre utal koo xam ne may nga ko dix ans quinze ans ba vingt ans nañ la naan loolu c'est pas c'est pas c'est pas euh, c'est pas suñu société mais pourtant c'est faisable dans dans la clandestinité jigéen ñi am xaalis yooyu bu ñuy tollu seen seen seen seen période yooyu na nga foog ne benn paa nañu jëli <laughs> wala benn seen morom yi nga xam ne ne mënuñu régle dara euh, ay wax yu bëri rek nañ la fay non ku paree nañu ut ku opérationnel nga xam ne ni kii au moins bu ma fi nekkee bu ma naree bi may dee si àll na ma gaynde rey tu vois donc li ngay def dans la clandestinité mais loolu mooy sa jàmm pourquoi doo ko def dans dans nu si de manière normale ba pare nga euh, nga bañ a toppatoo lu nit yi di wax yow sa jëkkër la il a dix ans de moins que toi quinze ans dafa tere mu doon sa jëkkër yow lan moo si sa yoon wala bu dee dafa nekk di jàng wala fexeel na doon ku am jom rek bañ a nekk ku ñàkk jom koo xam ne dafay nekk fii di di taxawaal di mandi di drogué wala di def loolu. est-ce que du kon éducation de base bi la ñu war a xoolaat góor ñi nekk ci seen rôle de de d'homme responsable ñu nekk ñu responsable réellement nekk bañ a nekk ci ci ay yu ñàkk fayda yi parce que. moi j'ai l'impression que plus ñuy dem plus génération yi di gën a dégradé wu plus yii nii ñuy gis nii di gën a empiré wu tu vois situation yi di gën a pire quoi. mais parce que comme je te dis les femmes de tout ce qui est rapport sexuel rôle gardien boobu lu tax ñu insister si jigéen ñi parce que ñoom rôle boobu bu ñu ko jouer les hommes ils feront ils vont respecter les règles yi ngeen fixé yaa di fixé règles yooyu boo ko fixé jigéen ñi góor lañ koy respecté dañu am pexe amuñu pexe donc liñ naan réew boo bëggee yar société bi yaral jigéen ñi mais c'est à cause de ça loolu loolu boo ko defee boo leen yaree ñoom ñu respecté ñu ñu respecté loo góor yi règles yi. loolu mooy mooy mooy mooy do loolu nañu war a insister te te te comme je dis toujours euh, euh, yi ñu daan teg si société bi société traditionnelle par exemple ñu lay ñu lay ñu lay yedd euh, di ngeen def ay lël genre yooyu initiation di la wax nag nga war a doxalee waxtaan yooyu moo moom moo amatul même bu amee tam bëriwul bu dee ñun yooyu rôle yooyu bàjjen yi nañ ko daan nañ ko daan nañ ko daan jox rôle boobu tu vois donc euh, ñu teela wax ak yow waxtaan yi moo bëreetul ñu wax la affaire yi ni nga war a doxalee góor yi nii ngay def ak ñoom nii nga war a def ñoom mais nit ñoom xale duñu leen bàyyi rek comme saa ñu dem comme maintenant on vi un peu de manière euh, tu vois toubabisée euh, de manière citadine tu ne vois plus tes bàjjen dootoo gis sa maam yi affaire yooyu mais parents yi nañu gën a jël seen responsabilité parce que du du du du du télé yi du internet bi du du école yi ñooy yàqale yi donc góor ñi ak jigéen ñi ku nekk na jël sa responsabilité góor ñi sax ñoo gën a mën yar jigéen ñi ñoo gën a mën a wax ak ñoom jigéen ñi sax parfois ñooy gën a mën a wax ak góor ñi waaw parce que yow yow yaay mën a xam yow yow yaa mën a wax sa ku jigéen ki yaay mën a wax sa doom bu góor lan nga jàpp ne mooy mooy jigéen bu baax lan mooy red flag yi comme ni ñu doon wax si épisode bi passé tu vois donc euh, jigéen ñi ñoo la koy gën a ma wax góor yi tamit moo lay mën a wax mooy mën a wax ku jigéen ki lan mooy góor nu muy mel parce que yow ak góor nga lan lan mooy seen piège yi yan yan piège la nga ne ndëgg sërëx nañ lay tegal pour nga bañ si dugg donc yooyu il faut que dès la base ñu koy ñu ñu koy def tu loolu moo indi problème yi gis nga couple yi il faut que à la base ñu xam ni ñu koy doxalee góor gi jël ay responsabilités am euh, xam na ne euh, euh, relation bi c'est c'est c'est c'est tout mënoo si dindi lii bàyyi si lii parce que mënoo nekk si sa biir sëy yow war a nekk ak sa soxna ngay nekk si di traîner sur internet di def yu kenn xamul parce que yow ne looy seet yi li nga bàyyi sa kër yow yaa boo foogee ne fële la gën a neexee da ngay nax sa bopp fii bu yaa koy neexal boo bëggee mu neex yaa koy neexal mais c'est c'est exactement pareil donc psychologiquement yow yaa war a yaa war a yëf li li gën a graaw si góor ñi xam naa ne foofu xëj na laay daanale mooy que désir bu émoussé wu mooy danger wu danger wu sëy léeg-léeg Parce que euh, désir bi émoussé wu c'est un phénomène plus dis, disons naturel si si si biir sëy moo taxit léeg-léeg euh, boo nekkee si mariage poligam li ngeen di bañ dégg mooy tane parce que. c'est vrai tu vois désir du émoussé wu on est toujours mm-hmm. voilà dans dans, dans euh, dans voilà, exactement dans, voilà, tu vois on, on, on se constamment mais néanmoins même bu doon na nga nekk ak sa benn soxna. lii tax góor en général ay désiram di émoussé mooy que gis nga góor moo dul ñoo ñoo dem ba dootu ñu xool seen soxna sax sa jigéen sa soxna di dina dina jënd yére bu bees wala def benn affaire tu ne la tu ne vois même pas et c'est dommage te góor connexion euh, regard dafa am importance yow da ngay dem ba dootoo xool sa jabar koo dul xool noo koy désirer c'est pas possible il faut la regarder <laughs> boo ko bëggee désirer il faut nga koy xool li ngay dem di xool si internet day koy xool sa jabar <laughs> li nga gisoon si moom bay ni ko si gi mi ngi fi ba léegi. donc nu mu mënti demee day koy xool day koy xool boo ko bëggee désirer il faut pas il faut il faut que les les hommes arrêtent de ne plus regarder leur femme loolu gis nga boo ko réglé di xool sa jabar di waxtaan ak moom di di di di di di di bëgg si moom li nga war a yëg saa waay ba bi nga xam ne ne di nga ko di nga ko désirer bu guddi jotee wala même bu dul guddi sax mais boo ko désirer parce que euh, sëy amul heure ah. amul amul lieu amul heure. waaw na nekk foo xam ne rek xëj na kenn nekku fa wala dugg na fi intimité la quoi mais amul amul di ko sàkkal ay affaire yooyu da sàkkal ko heure ko bërëb bu jotee nga sonné cloche bi affaire bu kiiwul rek ñu ne voilà c'est c'est fichu <laughs> affaire bi yàqu na donc ci vois mu nekk benn stress quoi nga xam ne vraiment kii non mais affaire bi mën nga ko désirer heure boo xam ne sax voilà du heure bi nga xam ne moom moom ngeen daan kii wala si lieu boo xam ne c'est pas les mêmes il faut regarder son épouse boo ko bëggee di continuer di ko désirer bàyyi di xool keneen li ngay xool keneen xool ko sa jabar loolu moo si ëpp solo. merci beaucoup Alioune kontaan nañ torop di la remercier bu baax a baax ci kàddu yi di remercier suñuy téléspectateurs toujours en vous demandant de vous abonner et si vous avez des questions n'hésitez pas la plateforme est là elle est disponible pour vous licotaktasoco.com si vous voulez aussi des entretiens privés n'hésitez pas non plus entrer dans la plateforme et entretenez-vous directement avec Alioune merci euh, merci beaucoup merci chers téléspectateurs on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Angelica Takatasuko.